donc ñun ñoo ko ñun ñoo ko déggandoo par rapport ak live bi bi xewoon tey. maam seen mooy def yooyu xam nga maam seen day jékki-jékki rek dal ci kaw nit dafa xaw a am ay rab maa ngi moom ñoo yem. donc voilà ñun ñoo ko déggandoo dañuy des toujours ci ci boobule euh, sujet maanaam sa engagement ci euh, wàllum féminisme tey jii sénégalais yu bëri dañoo am benn perception bu xaw a négative bu xaw a péjorative par rapport ak euh, domaine boobu tey jàppoon ni yéen du yéen a tax yi am boobu regard sur vous. mais ci ci àdduna bi yëpp. xeex bu jóg au début day metti parce que ñi nga xamante ne ñooy ñi fi fekk parce que man njëkkee ma ko fi féminisme y a deux trois générations yoo xamante ne ñooñu ñooñu ci gën a fës te ñooñu am na loo xam ne def nañ ko fi loo xam moo ñu permettre ñun ñu am tey fit taxaw di am yenn revendication yi a un travail qui a donc ci continuité bi la ñu nekk euh, dañu nekk ci société boo xam ne ay góor ñoo ko dominer loolu moom euh, nañ ko waxte de ay góor ñoo ko dominer mm-hmm. donc boo ñëwee di xeexal li nga xamante ne mooy loolu la ñu lal depuis toujours il faut deux trois générations yoo xamante ne ni dinañ jot ay saaga dinañ jot ay menaces dinañ jot ay xas dinañ jotu sax ñu ne la entre guillemets caga nga parce que noonu la xeex yu bëri au début il faut que mu metti et puis la chose se met en place naturellement donc loolu xeex yu bëri même dina l'islam bañ ko fi teg c'était un peu compliqué il a yi ñu xeex ko ñu xeex ko ci ay années yu bëri ñu door ko mën a instaurer mais équilibre boobu ñu bëgg san un boo xam ne équilibre social la équilibre économique la mais ba tey jëmuñu ci équilibre religieux parce que loolu beneen domaine la. effectivement ci boobu domaine sax ñun ay sénégalaises lañu. voilà ci boobu domaine sax la religion dafay xaw a am tuuti tuuti contradiction par rapport ak l'islam fu mu teg jigéen ak yéen act yéen yéen yéen féminisme yi euh, rôle bi ngeen bëgg a attribuer féministe la femme je veux dire est-ce que amul benn contradiction bi fa bi fa nekk. Ah, xam nga la contradiction elle aurait été contradiction dafa am ba pare. parce que Sénégal ak nu mu mënti mel on est dans une république laïque loolu la ñu tëgg cest à que tey euh, diine gi c'est quelque chose de privé nañ ko bàyyi fu mu nekk loolu c'est une décision boo xamante ne depuis Sénégal am indépendance am on est une république bu fekkee ne dañu bëgg ne diine bi moom mooy régir l'ensemble de la société nañu woo Macky Sall mu defal ñu référendum ñu tëgg fi république islamique ñun ñëpp ñu tënku ci li nga sol ni nga bañ ko sol sama yi ma nit ma bañ ko sol góor ñi bàyyi lañ nekkee ci mbedd bi bu boobaa mu dëggu ci ñëpp mais xam nga tu peux pas vouloir les avantages d'une chose et ne pas avoir les inconvénients loo gis ku nekk dafa am avantage donc il y a une certaine hypocrisie des hommes sénégalais parce que dañuy bëgg les avantages de l'islam mais ne pas vouloir assumer les les, les conséquences te loolu de xaw compliqué donc wax loolu c'est normal que mu am yenn friction c'est normal que société bi am benn rejet c'est normal que ñu jël yenn jigéen ñi ak ñeneen ñi en, en concurrence parce que diviser pour mieux régner loolu moo loolu c'est une loi de guerre quoi. donc ñun ñoo ko déggandoo si vous venez de nous rejoindre tey jii ñu ngi invité Gabrielle Kane mu doon féministe di xeex àq ak yelleef jigéen ñi fii ci Sénégal dans l'Afrique et un peu partout dans dans le monde.